benn sénégalais nax sa bopp ni li politique yi def ñun askan wi dañ koy yëg économiquement on va le sentir amul benn répercussion boo amul kenn ku la mën a taxaw ni la 2024 bi l'économie de ce pays dina jug dina am benn croissance bu élevée amut parce que on a déjà voté le budget te tey bi ñu voté budget ba pare mm-hmm. on a voté le budget du Sénégal ban koy voté est-ce que dañu jàppoon ni que lii tey jii xew ci réew mi dana am xam nga jàppuñu ko woon. dañu jàppoon ni que day nekk benn benn année boo xam année stable lay doon moo tax tey ji ñu yokk le budget du Sénégal tu es d'accord. bi ñu yokkee le budget du Sénégal quand tu augmentes ton budget nga ñëw sa premier trimestre sa premier trimestre jeexagul janvier moo jeex yaa ngi ci di yaa ci moitié février nga am benn crise politique boo xamante ne tey ji day plomber sa économie investisseur bi waroon a ñëw investir étranger bi risque day élevé. danaan non fii du ma fi dugal sama xaalis parce que su ma fi dugalee am touriste bi du ñëw du ah léegi su fekkee ni que oo danaan su ma ko suma ñemee ba dugal naa ma ni ah lii daal day jaal nuage la mais damay yokk samay taux directeur d'intérêt da ko yokk benn ñaareel bi bu la waroon a jox cent milliards dana ko wàññi taux ba nga naroon a fay ci cent milliards dana ko doubler jox la cinquante milliards ni la non lii laa la mën a jox bu en attendant parce que kon dangay ngay am foofu déficit loo xamante ni jàppoon nga ko yow ci sa ci sa ci sa jàppoon nga ko yow ci sa budget bi nga koy def nii lii war na fee dugg loolu dina am lu ci lu ci deñ loolu indi benn déficit budgétaire ñaareel bi nga ñëw nag ci sa biir réew nag léegi l'investisseur bi nga xam dafa nekkoon nag national sénégalais bi nga xamante dafa yor xaalis xaalisam di investir ci biir réew mi situation politique bi ni mu demee mais kooku dootu ñemee investir la mu yor da koy téye parce que xaw ma fu ma jëm liquide laay soxla dama naroon a génne sama liquide dem investir duma ko defati xaar ma am lu ma bloqué xaaral ndi ko ba xam fi nu jëm fan la réew mi di jëm loolu ñaar la ñetteel bi banques yi bi crise bi amee tey banque yi nekk Sénégal yépp à l'unanimité ñëpp yokk nañ seen ay taux de risque ça veut que tey jii yow en tant que jeune en tant que travailleur kóolute euh, bi bi banque bi amoon ci yow amee ko tey sa entreprise ngay liggéey am sa contrat am sa lépp dem ci banque bi ni ko lebal ma dama lu ma bëgg a def dama bëgg a tabax mu d'accord pour lebal la ci loolu parce que xamoon na ni am nga jàmm te sa liggéey mënut a a daanu. réew mi amoon na jàmm amoon mais tey jii boo demee tey jii di ko leb ji dana naan ah ma mënoon naa la lebal de un million mbaa deux millions mais fi mu toll nii loolu du mën a tekkati damay xool sa dossier xoolaat say say état financier wu entreprise xool ndax nekkul ci lii ndax ci lii nangam nang ça veut dire que seen ay risques mën naa di élevé te banque bu ay risques am élevé nga gis ni ko mu am problème donc loolu ñaareelu ñetteel bi le commerçant commerce bi ab réew commerce ko yor hmm. commerçant bii dem di jënd ji di ñëw di indi di def commerce échange moom tamit dafay jël ay risques day jël ay ay matuwaayam donc léegi nag population bi léegi inflation bi day gën a yokk